140e édition gàmmu Thiénaba Seck euh, tey jii lendemain gàmmu bi di bés boo xamante ni bés bu am solo la si Thiénaba bés la boo xamante ni du particularité la boo xamante ni bii ñi dul njabootu am na Ndack Seck di saaye maanaam ñi nga xamante ni bii jokkuñ si kër gi sax kenn nangu ñi nga xamante ni mos nañ déglu bés bi yi tànn bés bi fépp ñu mën a nekk euh, buñ gàmmu ba ci suba set dañuy ñëw ànd ko ak njabootu Mame Amary Ndack Seck bu ko defee rek jamono ji may àdduna yi teewlu ñu ngi nii si buntu kër bi bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Seck sécurité baa ngi nii sécurité bu doy waa police waa gendarmerie waaye tamit sécurité boo xamante bi mooy euh, euh, euh, naka laa tudd sax ñu nga xamante ni bi dañuy jógee Dakar sag gàmmu wala chaque ziyaara ñëw bokk ci ñi nga xamante dañuy renforcer sécurité xalifa bi ak ñi nga xamante ni mooy ASP yi ñoom ñëpp ñu ngi fii fas yoon sécurité xalifa ko defee rek li ñu def dañuy jot suñu benn bopp su fekkee euh, euh, mën nañu taxaw ak yow nga wax ñu lan moo waral seen teewaay ak itam lii mooy ñaata émission bi nga fekkee kenn xam waaye balaa nga bokk nga koy sant ak itam sa liggéey bi muy def biir kër gu mag lay jaar fa lay rëddee xaat bu mag bu mu daan rëdd ba nga xamante ni ay maamam moom lañ daan rëdd waaye ay way juróom moom lañ daan rëdd su doonee moom lay rëdd jaar ci buntu kër gu mag def yegg dugg si jàkk ja lay dugg si jumaa ja lay dugg directement julli tàkkusaan bu jëlee tàkkusaan ba noppi nag si lay génn nag jàkk nag bool waat nga xamante ni ki ko njëkk a fii mooy man waaye bi mu si jógee itam euh, man doon premier xalifa na ko bi mu fi jógee itam Euh, borom jaaram euh, sëñ Ibrahima Seck waat na waat boobu waaye itam sëñ Abdou Mamadou Seck moom itam waat na waat boobu sëñ Modou Seck waat na waat boobu sëñ Ousseynou Koudia Seck waat na waat boobu ba wàcc waaye itam sëñ Ousseynou Xaar waat na waat boobu ba wàcc bàyyi si Ahmed Tidiane Seck yaakaar naa ne waat na ko ay édition boole kon tey bés la boo xamante ni bés la bu particularité bés la bu mot a bàyyi xel bés la boo xamante ni bii histoire daf koy déglu lan euh, le lendemain gàmmu Thiénaba Sadji yaakaar naa ni xale yu ndaw yi sax xale yu ndaw yi sax guddi gàmmu gi am na solo lool rëy na lool waaye xale yu ndaw yi gàmm bu ñu demoo ba ci suba si si heure bi kenn du nangu ñëpp dañuy génn pour a fekkee dugg ci xalifa bi euh, euh, waaye tamit aj ya ca aju bal ya ñuy tii rek yooyu yëpp incha allah xam naa du ñàkk ci biir programme bi dinañ introsé ay mbokk yoo xamante ni dinañ ñuy wax lan moo waral bal yooyu ak itam. ñaata ba lay doon ak bu si nekk dafa am fu koy tiiree yooyu yëpp dafa doon yoo xamante ni lu mat a bàyyi xel xam la ndax nit ki lépp loo xamante ni nekk na te day am solo mu xam kon bu ko defee sëriñ Modou Sarr dañuy euh, si biir jéem a euh, su ko defee rek mbokk yi ñu continuer si liggéey bi euh, ñu ngi taxaw benn mbokku taalibe boo xamante ni bii jabool la ci kër gi bi la ci kër gi xam naa ni miin nañ ko donte tur bi man na am mu euh, koy jàpp noonu miin nañ ko ci xalifa bi buy génn waaye wayjuram tam wayjuram nekkoon koo xamante ne bi euh, lu rëy la def ci Thiénaba bu ko defee rek moom itam mii nañ ko mu nekk si àll bi waaye gis nañ ni chaque gàmmu fu mën a nekk loo ko gëj a gis loo ko gëj a gis bu gàmmu dikkee da nga koy gis waaye itam surtout bu xalif bi ànd buy xalif bi génn da nga koy gis dootul ànd ak sagoom sëñ bi dañ lay bëgg a présenté wu d'abord parce que ñu door dugg si salaamaaleykum wa rahmatulah surtout xalifa bi fi nekk wax di jur sama yaay ñoo ko ndey ak jox ma salaat bi fatiha mu xalifa Ndiaye sëriñ bi bëriwul parce que sëñ bàyyi génn liñ lay laaj rek mooy jamono bi wax génn rek ñu yëg si ah, wax may wax ak nii sama sama sama yaram moo ngi taw parce ku xam canaba rek xam ni xam ni secret canaba mooy takku saa ne suñu gàmm takkusaanu gàmmu ba bàyyi Seexu Jànn ba war a wàcc génn ak muxaddam yi ak taalibe yi jëm sa buntu jumaa je fekk taalibe yëpp a fay toog di xaar mu fas jaayante ak ñoom eggale ibnu mayib bi ba pare jaayanteeg suñu borom nga comme nit ñi di fenn rek la am ci Sénégal kenn rek moo ko ñaan te dara ko si fekk muy Seexu Jànn ba imaginer fi jamono toll nga suñu borom yu mucc ba pare ni ko suñu borom kat buñ démé ba tay di àdduna su diine war a sooxe si kaw suuf yàlla nga tukkal ak loolu nak ku koy déglu ak àndaat ak environnement bi muy andal yépp nga xamanteni environnement Samba Sadio di 1875 dañuy fàttali nga xamanteni suñu maam dafa jaayante ak i balaki jaasi ba tey ñu am li ñu wax loolu nag mooy tax da ngay gis nit ñi kenn du ànd ak sa sabo te ñun Baye Cheikh Ahmadou Tidiane bi suñu suñu maam suñu sëriñ suñu yaakaar dañ ci dañu amul sago si moom parce que waajuram wa maam Ibra Penda lañ koy xoole waajuram wa góor gu mag Momar Talla waajuram wa maam Madike mais waajuram wa aussi di Sëriñ Thiénaba Ahmadou Ndak Seck moom lañ koy xoole moo tax fu ñu ko gisee rek suñu duñu duñu ànd ak suñu sago moo tax aussi tamit comme ni nga ko waxee léegi gàmmu Thiénaba fu ñu mën a fekk si at fu ñu mën a fekk dinañ bàyyi lañ doon def bu ñu fekkoon ñuy liggéey dinañ bàyyi liggéey ba bu ñu fekkoon ñu nekk beneen mission daf dinañ ko bàyyi bu ñëw taxawu sëñ bi ànd ak moom tàggal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxtaan ak taalibe yi ñaan ñu delluwaat ci dee que nii loolu moo mooy mooy tànk yi tey te tey dañ ñëw nii nag pour accompagner ko dem kër bu mag dem kër bu nga jógee gàmmu si bu maa ngi jógee Paris actuellement maa ngi jógee Paris ñëw gàmmu si merci kon ñu bàyyi ñoo ko dégg loo kooku bu bàyyi xel caméraman yi rek ndax liggéey bi gën a rafet waaw bu ko defee rek mi ngi noonu ñu ubbi leen ko buntu yi mi ngi dugg ci oto bi Baye Cheikh na Tidiane Seck la xalif général de Thiénaba juróom ñaareelu xalif Abdoulaye Seck dugg na si biir oto bi tàllal na loxo ba tàllal na loxo bu ki mujj day jël bopp oto ki mujj day jël bopp oto ñu donc ñu mën a. gars yi bu ngeen jëlee oto bu ngeen ko jugee ndànk ndànk ñu a jël liggéey bi comme ni ngeen koy sàkkoo rek sécurité bi ñuy eh, bàyyi xel presse bi bu ko defee rek bu ko defee rek ñu gën a mën a def liggéey bu mucc ayib ndax eh, suñu objectif lenn rek la ñi nga xamante ni bii teewuñu fi parce que dañu am gànt ñu mën koy seetaan am rek loolu nag sécurité eh, bi ñoom si mën a jàppale bu baax a baax bu ko defee rek ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif muy 140e édition gàmmu Thiénaba Seck doon gàmm gu mucc ayib bu ko defee rek loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñu ngi noonu dëgmal pénc ma comme niñ leen ko waxee sànq rek biir kër mag lay lay dem su demee ca saal ba fekk ba njabootu Mame Maty Ndack Seck bi yëpp ñi nga xamante ni bii euh, noonu la ko maam yi daan defee. noonu la ko bàyyi daan defee mu fas yéene ko defee noonu ànd ak njaboot yi ñëpp lépp loo xamante ni bii kilifa yi daan nañ ko def rek su dikkee lu si wàññi daan duñ ko yokkul itam bu ko defee rek kon mi ngi noonu ñu ngi tolloo ko si kër sëriñ Alfa Mamadou Seck ndax xalifaan bi njëkk na ko muy sëriñ Aliou wala sëriñ Abdou Ibrahima Seck bàyyi Cheikh non jant bi jant bi rek mi ngi noonu yàlla rek wooteel yàlla rek moom moo ko mën waaye bu yokk kër bu bi nekk si ginnaaw waaw ñu fas yéene leen ko xam naa ne oto bi ngay téye mi ngi noonu dugg na si biir kër bu mag Baye Cheikh na ci Jaan Seck xalifa général bu Thiénaba Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa maam moom Modou maam moom war sama daal bi sama daal jël ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu ngi ñëw bi ñëwee biir kër gu mag ñii fi fekk man nañ ci noté la porte parole di xalif Baye Diop Seck mi ngi noonu waaye itam la coordonnateur monsieur El Hadji Diop moom itam mi ngi noonu bu ko defee rek incha allah xanaa ñoom ñëpp ci ko temps bi mayee du ñàkk ñu am ay kàddu ñu si rafet cameraman ñëwal jege bu ko defee mi ngi noonu rek ñu sori waaw kii bi jant bi laay doon wàcc na si oto bi bàyyi seex na ci jant sekk wàcc na si oto bi photographie yi ñu ngi def seen liggéey waaye tam caméraman yi kasaalika mi ngi noonu bu ko defee rek euh, ñuy bàyyi xel sécurité bi ñu def seen liggéey xam waaye dañ ko bàyyi xel bu leen noonu bu leen noonu dañ jàll ba taxaw leen noonu bu leen ñëw de dañ taxaw waaw bu leen ñëw de bàyyi jóg góor gi jóg gis nga ñëw na

mais caméraman il faut ngeen arrêté yéen itam bàyyi seen bi dox il faut ngeen arrêté bàyyi seen bi dox. Thank you. Cheikh Tidiane Seck yal na fi yàgg ci wér maa alhamdulilah Seck yal na yàlla doon ay xiiwalam moom dama wax ak suñu dëggal suñ Papa Gueye yal na yàlla ko ca fan yaa xale yi ko amee ñëpp ak mboolem bi fi ñëw di dem bi tax laa jóg saa borom may la fan yu gudd war a wér gi yaram wërsëg bu yaatu war a jàmm yàlla bu ñu nangu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin اللهم صل على محمد سيد البشر

له الأسماء من يتقي الله يا إلهي يا 哦，哪个？我这个。

No, Miguel quiere. Miguel quiere. نبي الهدى في نومه وانتباهه الوى البه allahu akbar Mam ahmadu ndak moy sunu serigne yalla nako jox moy sunu njariñ nañ ko japp nañ ko gem nañ ko bëgg nañ ci